yooyu moom man bu ma déggee sax damay tiit ndax loolu moom du du loo xam ne li war na eh, yëngu fi Touba ji féete sax ndax loolu moom doon loo xam ne doon xam war a am ci ñun waaw kon loolu moom mooy bu ko dëggee daal dañuy war a tiit sax ñun suñu bopp waxtu maa nag maanaam ñu di ci xam dara loo xam ne dañ koy war di yëngoo ah sonn rek instant bi instant bi moom ñun jigéen ñépp sonn nan jàq nan jaaxle nan ndax instant bi kenn ku ne yaa ngi xalaat ne tey mënoon na nekk yow wala mu nekk sa doom wala insécurité bi am Touba moom ñun ñëpp si tiit fi ñu toll nii ndax yow foo jóg foo jëm ñu ngi lay yaa ngi xalaat que ne yow doo ñibbi ñibbisiwaat ak sa bakkan surtout ma milieu bi ñu nekk chaque jours ñu ni avertissé de mort chaque jour bandi yaa ngi fii di def nu leen neexee nu leen neex la ñuy def. mënoo toog 2 mois 3 mois 4 mois déggoo ko ñu rey loolu si ñaari anam laa ko teg mu ñun population bi ak euh, gouvernement parce que Touba ni mu toll di màgg. war nañu mën a am sécurité bu doy mën nañ ne secteur bu ne même bu amul camp war nañu mën a am ñoo xam ne nii ñu sur le terrain yor sécurité bi du saytu du xool. lu yéeme la ndax dëkk Touba bi yaakaar naa boo ko borom di sanc li ko sanc woon mooy jaamu yàlla rek ak liggéey fexe noo tekkee kon bu jamonoy dox ba dëkk bi màgg ba toll nii mu toll. ay samba booy yoo xamante ne si jóge nañ fenn fu ne ci réew mi ñëw dëkk fi di fi def lu waral li ko boroom sañc woon kon ñooñu ñu ngi wor Serigne Touba ñu ngi wor mboolem jullit ñëpp ndax dëkk boo xam ne jaamu yàlla ak liggéey rek moo tax suñ bi sañc ko ku fi ñëw ku nekk ah la nga war a def mooy fas yéene ne ak njub fas yéene jaamu yàlla waaye dafa fi lenn lu dul di faat ay bakkan Ah, loolu day wax dëgg yàlla su amee dana doy waar lool ba loolu daal ñaawlu nañ ko gën gi ñaawlu waaye lépp nag yàqu jikko yi rek ak ñàkk gëm sa borom waaye fii de am naa ci yaakaar ne adduna ak li ci biiram moo xam jigéen la moo xam xaalis la lu fi war a mën a jaral maanaam di faat ay bakkan amu fi ñàkk nit rek ak ñàkk xam dara moo tax ñuy def loolu waaye képp ku xam dara gëm yàlla gëm bis penc xam ne lii ngay def ëllëg da nga leeg sa borom da nga tal leneen lu dul nefe naa da ngay faat ay bakkan lool topp sa bakkan topp sa bakkan nag moo war a rey nit ndax yow lu tax nga di ko rey benn nga bëgg koo violé wala nga bëgg alal jool jël ji moom ñaar yooyu rek mooy war a rey. drame yi nga xam ne tout le temps dañ koy dégg biir Touba gi nga xam ne sëriñ bi da koo sancoon ngir jaamu yàlla ak xeetali nit ñi. ñu dem ba nga xam ne muy dëkk boo xam ne jamono ju ne nga fi dégg ay insécurité yoo xam ne ay dégâts yoo xam ne kenn xamul lu mu doon rawatina di rey ay nit yu demee noonu muy loo jëf yoo xam ne yëllu ci dëkk bi di nga xam ne mooy Touba du leen luñ ci am di ko di ko naqarlu rek di ko naqarlu baax xam ne lii moom dëpp wut ak bëgg-bëggu sëñ bi wax dëgg yàlla lu mel nii doonoon ko seen séntu feneen fu dul Touba waaye nag du loo xam ne lu ñu bett ndax Serigne Touba moom ay mbiram dafa barkeel maanaam dëkk bi tey dafa dem ba ñëpp fu ne waaye dafa euh, euh, jóge di ñëw biir Touba waaye loolu saa amee rek maanaam kenn ku ne dana ci raax waaye li ci am solo rek mooy moom képp koo xam ne yaa ngi ciy def ay euh, ay ñaawteef mit maam faaw da nga di feeñ parce que Serigne Touba moom waxoon dëkk bi ñaanal képp koo bépp boo xam ne da nga sóobu fii mel ne lu nekk àjjana ci moom waaye képp koo xam ne da nga nekk ab caay-caay tamit di def lu ci yow nga xam ne mënoo soo ci defee ay caay tamit faaw da nga feeñ waaw da nga feeñ te moom xam ngeen ko képp koo xam ne def na fi ñaawtee tamit fa muy mujj mooy feeñ rek kenn mun fay dëkk nekk biir Touba gi def ay ñaawteef di ci dëkk di ci di ci weeg bànneex faaw faaw faaw toskare ñeel la faaw toskare dikkal la niñ ko mën a saafaraa mooy ñun suñ biir ñu ñëkk a dëkk bi defaraat dëkk bi bi ci des mooy état parce que état boo dee Touba mun nañu li fi nekk si ay camp bëriwul buñ ne jannatu buñ ne guy mbind buñ ne Kabaay Laat garage Dakar laa fi gis kon war nañu mën a yokkaat sécurité bu baax man état nag lay lancer message te ñun sunu biir comme problème mu yi itam nañu xoolaat baax ñu ñu luyee ñan lañ parce que nit bu ñu nee dafa ñëw di luyee war nga ko mën a identifier xool carte d'identité xool fu mu dëkk xool fu mu juddoo xool fu mu yaroo jël ay papier yóbbu ko police ëllëg boo gisoo loo xam nga jël ko dénoncé mais ñun Touba Touba wax dëgg yàlla dëkk Sëñ Touba la dëkk yërmande mais dañoo yërmande affaire yi ëpp daf ñuy ëpp doole. yàq tim bi. bërëm kër yi nañu xool ñu ñu luyee ñal lañ ñun ñu dëkk si dëkk bu sell bi nañu xam ne dëkk bi Serigne Touba da ko liggéey liggéey bu rafet kon kenn ku ne am nga foo cosaanoo kon dañoo bàyyi suñu cosaanu maam ñëw fii nag war nañu mën a sàmmat waru may dëkk bi sécurité ñun ñu njëkki ko suñu biir avant homme de tenue di ñëw wax dëgg yàlla. loolu daal lenn rek moo ci sama xalaat mooy li lislaam wax rek ku rey ñu rey la daal bu fi bu fekkee ku rey ku ne maanaam lan lay jël mooy dugal ci kaso nga nefa nefa nefa nefa nefa ba mu neex leen ñu génn leen loolu tamit fii mi ngi am maanaam maam maanaam loolu mënut a saafara dañuy def ku rey ñu la tëqat rey ba ñëpp xam ne yow mii lii nga def rey la na war a def reykat yi bu ñu gisee loolu ëllëg kenn dootul xalaat di rey. du leen dul sensibiliser nit ñi ñu fexe ba rawatina ñi nga xam ne dañ fiy dikk soit ay gan lan ak ñu mel noonu kenn ku ne bala ngaa luwe nit nga xam kan la ak yu mel noonu ndax genre fi indi yu mel noonu. nit ki daal bala ngaa mën a euh, jël nit di ko dugal sa kër yi mel noonu di ko luyee nga xam ba xam kii kan la ak lan mooy yitteem te nit ki tam su fekkee ku jub daanaka soo ko soo ko gisee da ko xam wala wala am nit jëf yoo xam ne nit nit di comporté wala nga xam ne kii du ko jub nga méfier waaye bëgg xaalis te warulaa tax nga jël luyee sa kër koo xam ne rawate muy famille boo kër goo xam ne da nga fa dëkk ak sa njaboot nga fay luyee n'importe qui ñaareel baat état war nañu góorgóorlu yokk sécurité bi Touba ndax nit ñi Touba nit ñi dañuy d foo xam ne nit ñi dañu jëm ci wusi ko commerce bi dox na fi lépp dox na fi kon dañoo war a fexe ba yokk sécurité bu baax a baax foo tourné gis agent de sécurité yi ndax dana tax de kii bi di wàññeeku rawatina tam ñu soññi nit ñi bu baax a baax ci ñu gën a góorgóorlu ci seen diine ndax lu ci bari yoo xam ne ñàkk diine moom moo koy waral ay violé ay sàcc ay rey ni loolu topp bakkan ak ñàkk diine moo koy waral waaye nit ki soo amee genn ci ragal yàlla lu bëri lu dana ko moytu te dëkk bi sëñ Tuubaa loolu moo taxoon ñu ñu sos ko fi yaakaar naa tamit loolu xalif beeg yëpp ñu ngi ciy dox baax baax waaye ay caay-caay moom du fi mën a ndax jamono moo mel noonu waaye daal ñu ñi ngi sant sëñ baax di ñaan suñu borom sëñ bi nga xam ne moom moom dëkk bi sancoon ko ngir diine mu gën ñu koo aaral te bépp comme te moom ñaanoon na ko képp koo xam ne da nga ñëw ngir def lu bon di caay-caay tamit maanaam fii doon sa pakk faaw faaw faaw faaw doo a am lu neex daal ah sonn rek instant bi instant bi moom ñun jigéen ñépp sonn nan jàq nan jaaxle nan ndax instant bi kenn ku ne yaa ngi xalaat ne tey mënoon na nekk yow wala mu nekk sa doom wala mu nekk sa rak insécurité bi am Touba moom ñun ñépp si tiit fi ñu toll nii ndax yow foo jóg foo jëm ñu ngi lay yaa ngi xalaat que ne yow doo ñibbi ñibbisiwaat ak sa bakkan surtout ma milieu bii ñu nekk chaque jour ñu nii avertissé de mort chaque jour bandi yaa ngi fii di def nu leen neexee nu leen neex la ñuy def ah xanaa ñu yokk sécurité bi rek yokk sécurité bi rek loolu laa fi gis de man instant bi